asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit di seen mbokk sëriñ Jili Mbay xaadimul Qur'an moo yëkkateeti doom ci dogal yi nga xam ne suñu borom ñu ngi koy dogal ci suñu biir yàlla dogal na am na lakk goo xam ne mu nga am fële ci gannaaw Koungheul dëkk bu ñuy wax Sil lakk ga metti lool nag la eh, la muy démb ci àjjuma ji la lakk ga doon am tombanteeg nit ñi dem nañ juma lakk ga nag eh, seen dund génnut waaye fas ya nga xam ne moom lañ daan liggéey sax dafa des ci lakk ga la ci gën a metteeti mooy boroom kër boo xam ne gaañu na ci fan yi moom lakk ga ca la bokk këram daram génnut kon nag ñu ngi tàllal loxo jullit yi jirim yooyu nga xam dañoo ñàkk waaye ñàkkaat dañoo ñàkk ba pare wëlbatiku ñàkkaat kon ñu ngi ci tàllal loxo bépp jullit boo xam ne ni yaa ngi dégg suñu kàddu nga dimbale ñooñu te yàlla rek tax képp koo xam ne dugal nga ci sab dërëm wala sa yére wala lu mën a doon loo xam ne doomu aadama mi ngi koy soxla ñoo ngi ñaan borom bi yàlla la ko yàlla nangul te bu ko nangulee itam yàlla na la yàlla musal ci natt boobu waaye yàlla yàlla musal ci musiba bu mu mën a doon rek kon ñu ngi ñaan itam imaam boo xam ni dégg nga li incha allah nga jotali ko ci sa jumaa comme niñ ko daan defee rek boo ñu woowee rek incha allah ne dara daje na fii rek moo xam yëre la moo xam lu mën a doon danañ fexee jot ci suñu numéro nag ku ci bëgg a dugal dara euh, Wave la Orange Money la 77 563 86 50 mbokki jullit yi ñu ngi leen di woo ci lakk googu rawatina jirim yooyu nga xam ne tey jii ñàkk nañ seen way jur waaye ñàkkaat mbooleem la nga xam ne seen way jur bàyyiloon na leen ko fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu